abonnez ngeen abonné ci chaîne YouTube bi bu ko défé ngeen bës cloche bi di am suñu ay vidéo en exclusivité mbokk yi cinéma bàyyiwuñu dara lepp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak banlieue production publicité pour am visibilité banlieue production moma si ci doy Jokol ak service commercial 77 533 1731 31 wala nga 78 211 08 94 ak banlieue production seen qualité mooy banlieue production ñëw na ànd ak danse bu bees a bees xoolal wane sa talent. salaamaaleykum mbokk yi xarit yéen ñi safoo di seetaan banlieue production ñëwaat nañu tey ci bi leen numéro ànd ak benn boo xamante ne si ne tey dañ génn feneen nag ndax nag nee naa leen kaay wane sa talent la ñu wax kaay wane sa talent nag nekkul sabar kase nekkul bongo kase nekkul fecc kase nekkul way kase tubaarikàlla gis nañu seex mu toog teg clavier moom day clavier seex. nekk doomu sam-sam nekk doomu dëkk bi nekk xale bi nga xamante ne ni tubaarikàlla moo baax moo riis moom la ñëpp wax ba mu duggee ci koñ bi tubaarikàlla mag ñeem a gatandu waaye xale yi ñoom indi ba ci biir kër gi ma koy laaj jàmmam ak jàmm yaramam di leen nuyu yéen nga xam ne yéen ñii si daan ñëpp di wax gars yi gën a abonné ah, gën a dugg ci compte bi xool xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci banlieue bi mën li ñuy def mën seen métier tubaarikàlla jàng ko ba mën ko te di ko def seex maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk ya xarit yi waa maa ngi nuyu ñëpp di nuyu fii ma dëkk nii di nuyu ñëpp di nuyu tamit waa Sam-Sam di nuyu sama yaay ji Ndiaye di nuyu tamit sama yaay Absa Kebe maa ngi nuyu ñëpp tamit pour ma limee rek damay juum. Cheikh tey ñu def déplacement de rangement indi caméra yi ñëw ànd ak télé bi nga xamante ne moom la ñëpp safoo muy Banlieue Production ñëw seet si la ba yëg-yëg nga ci am. waaw ah, kontaan rek ndax tamit lii ngeen def nii tamit dafa rëy man. li tax ma ne dafa rëy si man ndax nit ku nekk tamit ah lii lay ñaan yàlla ndax loo gis ci commencement la ndax tamit yéen yéen a yéen ñuy wane est-ce que comprendre lii dama siy kontaan bu baax tamit kontaan naa trop. ñun aussi kontaan nañu ndax bi ñu ñëwee teeru ngeen ñu te gan moom bu ñëwee nga teeru ko rek defal nga ko teraanga teraanga ji loolu la waaye bala maa dugg ak moom ci émission bi direct damaa bég ndax li ma bégloo mooy damaa ñëw ci koñ bi nit ñi di profité bëgg a def ay témoignage ci seex loolu baax moo ko waral am na koo xam ne moom dafa siis euh, émission bi ni ma damay wax ci ci seex ndax fi ma jaar ak moom ndax ni mu mel ak man kon dama koy bàyyi moom mu daal ubbi émission bi daal ñuy wax ay yëyëgam ci seex ñu doo ko dugg directement ci clavier bi mbëng mbëng bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen gars yi tey dina neex tey dina mel ni togg dof Mama nuyu na la. fay na la. xam nga ya ci sunu émission nga ne da ngaa bëgg wax ci cheikh wa cheikh dama ci sa wara wax. wa yaay da jongo ma cheikh sama rak la. sama rak la sama doomu jaay la wante sunne diw baax na dan nan ba xam mbokk ya ko wax. deug la cheikh bax gën tubarakallah ma sha allah. seex tubarkalla macha allah li ne ko sank da ngay dem koy ñaanal yalla yal nako yalla musal ci chat ak lami ak ndok ndok barki serigne Fallou cheikh sadjul fenul taxawalul bëggul lu bon xana métier bi rek ak xaritam yim ci ma sha allah laf cat. kon su dee xaw lu bakum so may samak fi nga bëgg a yegg nga ko fa yalla yeggal. wante cheikh yow yaay ndak jaara parti ge ñabar yaasi ma ci beuti yow cheikh ab sa yaay wante cheikh faaloy sa bay nga juddoo ni nga juddoo magge ni nga magge jëfé ni nga jëfé kon cheikh du bon nak ndayam bonul. xoolal waay seex du bon ndax ndaayam bonul yawaay ab saay sayaay réew mi doo fi ñaaw sefalay sabaay xoolal réew mi doo fi ñaaw wane aboo judd abbo taar abbo maaye kon seex du bon ndax yaayam bonul seex du bon ndax yaayam bonul xolal matar nga bokkal yaay way wandeelu nga jaara nga bokkal yaay way wandeelu nga anden mbay nga bokkal baay way wandeelu nga kon seex du bon ndax ndaayam bonul masha Allah masha Allah ah. mu nekk fii ndax di liggéey ànd ak xaritam yi ñoom Assane Ndaw ak baax lool gën riis dañuy teel a dem di teel a ñëw man di wax dëgg yàlla léegi lu waaye di waxal nit lu mu nekk sa rak-rak wala sa mbokk na nga wax lu leer ndax tubaarkàlla macha allah dégg gaaw ñu xamuñu tey la xamuñu suba la ñu nungoo liggéey am jom macha allah sàccuñu fenuñu tuxuñu kon seex dama koy ñaanal tutur rek dama naan ko sa aar bii nga nekk yàlla nga dund ba ñu dégg la fi sori ba lay dégg fu soree sori ci barki Seydunaa Muhammad yàlla na la yàlla defal jaam yéen ñii fi dikk tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ki la wan ki wan ki wan yoon wi kooku mënoo koo fay yéen yàlla na leen yàlla lafal cat ñu leen di dégg fu soree sore ci barki Seydina Muhammad kontaan naa su wax ji dëngee nax ngeen baal ma <laughs> dara dëngul macha allah macha allah lépp leer na Cheikh amin yàlla na yàlla nangu ñaani yàlla gën la kàttan yàlla gën la dooleel di wax nii bu ñu la nee baax nga nag da ngaa a yokk ndax nag tabaarikàlla nii nga def nii wane na ki nga doon lii di affaire bu bu bu bu spécial la affaire bu daw yaram la wax dëgg yàlla waaye nag Cheikh damaa gis bi maire bi bi maire bi euh, di taasu nga dugg ci clavier bi genre dafa mel ne yow xaaroo xaaroo sono pour clavier xaaroo mumbaay pour clavier maanaam li ngay def da nga ko mën ba fu la fekk da koy def. waaw ndax dama kaa jàng ndax nit ñi ba ñuy dem di lii wër gi di nettali wala ñuy wër gi di taxawaal ji man damaa jaral may dem dakaar di ko jàng ji nag. ma bëgg ko lool nag. mu jaral ma nag lu ne. parce que Seydina Muhammad. ndeysaan fonk ko nag lii nii. ma dama kaa bëggal sama bopp te damaa gëm ne mën na maa dugal fu ne si àdduna barke Seydina Muhammad te incha allah dina ma dugal fu ne. incha allah dina la dugal fu nekk te am naa gëm-gëm bi ndax ndax ndaw nga te ndaw moom bu nekkee ci yoon gëm ko dafa ci lenn lu ñàkk fayda suñu borom mën na ko ci jàppale waaye nag seex kaay wane seetaan la ñu wax te bëgg nañ aussi yow nga jox ñu ay note ci clavier bi yoo xam ne yaa ko defar sa bopp nit ñi daal di dégg ndax nag nit ñi xam ne dañuy sikki sàkka mën na wala mënu du dëgg dañu lay bàyyi rek nga daal di doxalaa ah. waaw de nga loolu han ah? lii nii. waaw. man ko lii nii may njaay. barki sayidina muhammad dañu fi deg inshallah inshallah dañu ci deg inshallah waye nak mu nek mu nek métier bo xam ne métier bu metti la métier bu dur ndax nak dafa nek métier bo xam dafa bëri ay détails bëri ay wax han ah? te ñi dañ naan waaw ñi ni déet ñi nga xam ñi nek di di yak ñi nek di def fakastal nga nek ndaw nak nga dund ak doom adamay ma ci dund nak lu metti li tax ma siy dund lu metti ndax dama see dégg lu ne ñi naan day dem ñi naan ci du dem te ko kenn du la wax sam-sam bii dafa metti ndax ñi la war a dooleel ñu la war a jàppale duñ la jàppale ñi si jàmbur yi ñoo lay gën a jàppale mais nag commencement bi métti woon na mais lenn rek dama toog na sant yàlla ndax am na ñoo xam ne ñoo ma jiit si aar clavier barke naa Muhammad man yàlla damay dimbali ah ñi ma siy jël bari na yesaay ma jël si njole hmm. yesaay ma jël si karbala ma taasu ko ah yàlla dimbali na moom ma siy jël et cetera et cetera ñu bari te ñoom ba ñu dalee di wax naan seex dina avancé seex du si avancé seex di lii nii la ma yàlla dimbali xola ñu ma siy dégg fu sori te incha allah dañ may dañ may dégg fu sori incha allah. te day baax. kon su ma la déggee dafa mel ni da ngay ziwal artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo l'international ku ci mel ni Ndiolé kenn ku xam na ne kooku l'international nekk artiste bu ñuy lam-laamee Cheikh nga nekk ndaw dem ci seen Ndiolé ak seen Ndiolé ni mu toll ci réew mi Ndiolé ñu koy ziwal ni ñu màggee yow xale bu ndaw nga nekk seen biir di ziwee. mais loolu sant yàlla ndax tamit am na fii ku nekk loolu lay ñaan yàlla ku ci nekk moom lay ñaan yàlla mais dama kaa gëm lii dama kaa gëm mu metti barke alxuraan karim yesaay may ziwe ji lii bu ma la man bu ma la waxee lii lu ma si dund lépp lépp sama gëm-gëm moo tax man may egg fi dama dem gisee mu barke alxuraani kërim ñëw guddee mu tëj bunt yi ma fanaan si mbedd bi. ba 6 heures ma dugg. lépp lépp gëm-gëm moo ma ko may. barke Seydina Muhammad lii day baax de. day baax incha allah incha allah day baax waaye damay gis clavier kat yu bari bu ñu waree jouer ji <coughs> dañuy dem louer ci clavier dafa mel ni amoo leen kàttan amoo leen amoo koom pour gindal seen bopp clavier. abuma déw ma si kenn di ko yalwaan na ko may ma clavier bu ma njëkk yor laa la wax instant déeg si bii nii ma wax la quatre cent mille lu tëjul dërëm hmm. laa ko jëndee te maa ko ñaqal sama bopp te jënd naa jaay naa clavier tamit déeg si bii jër quatre cent mille boo xam ne man maa ko moomal sama bopp lépp lépp lu ma ko may gëm-gëm la hmm. ah ak am ambition ak nit ki lépp looy def te bëggoo ko rek amul benn sens lépp looy def si àdduna da ngay am gëm-gëm bi ndax aar bi dafa toll foo xam ne boo nekkee jeune amoo si fulla nga ñàkk si fayda ah doo si avancé dafa laaj gëm-gëm aar boo si nekkee dafa laaj gëm-gëm fulla ak fayda. tëxëñ lu bari teg ko ne leen. nekk sa yoon man nag man nag ki sama ki sama dégg-dégg dégg naa nit ñi day wax ne seex ku sévère la seex koo xamante ne euh, moom ay yoo xam bariwul day caractère fu mu toll ah amut ak kenn affaire seex dafa nekk ni dafa réservé wu la moo tax ah loolu xam rek ku ci nekk nga joxalu moom mag nga joxalu moom xale nga joxalu moom ndax boo bëggee tamit ñu lay ngay nit ñi man ma nekk xale tamit am ambition ah tamit. ku nekk rek ma jox ko sa wàcc waaye ku ma mag ma xam ne ci damaa mag ah koo xam ne tamit maa ko mag ma jox ko cër. mais dégg naa ne duggante waa ak kenn da ngaa téye sa bopp ci ñëpp. waaw dëgg la ndax li tax ma téye sama bopp ci ñëpp ndax nit ki artistes yi tey jii nii exemple bu ma nee damay dem ko ñoom diw wala ma ne damay dem ko ñoom artiste wala ma dama nekk damay dem ko ñoom et cetera et cetera kër artistes yi rek bu ma fa demee tey kaa ma xamal la ma wax leen benn secret bu garaaw ci aar. secret bi dama koy wax nit ñi bàyyi si xel tey jii nii ah artiste boo siy dem këram chaque jour mu lay jox lekk du la jox naan tey bu tey jii bu la waroon may million du la respecté danaan ci maa ko amal añam dundam du la respecté artiste wax ma kan la gën a fonk ku koy raar kooku la gën a fonk parce que Seydina Muhammad maa la jox seekare boobu noonu. clavier yi kat léegi nag dañu bari parce que bu ma seetloo xale yu baree bare baree dañu dugg ci aaru clavier bi di clavier xale yi mais boo seetloo des fois nga nekk sax ci xew fa tëkkat bi nekk fa waykat bi nekk xale yi duñ fa nekk lan mooy waral loolu. waaw liy waral loolu noonu ah léegi da ngay imaginer aar bi léegi koo wax mu ne la aar bi kenn moomu ko léegi da ngay gis kenn dem jënd clavier léegi kenn ñëw booy damaa bëgg nga ñëw jël ma nga ñëw. def lu la saf léegi nit ñi xoolatuñu ah, ku mun léegi aar bi dafa yàqu te aar bi dafa toll foo xam ne ku jàngul ëllëg di nga sonn. Mhm. ku ci jàngul ëllëg di nga sonn barke Seydina Muhammad. lii ñuy def nii ku koy fooyee wala jàngoo ko da ngaa sonn.

na de waaye nag am am na lu ci rax ndax nag seex waaw mel ni dafa mel ni yéen yéen clavier kat yëpp li gars yi wax moom moo ci am mooy gars yi clavier kat yi ci réew mi yëpp instant bi kii la ñuy roya ah, booy bi rakku sama jaara boy bi kan Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye dégg naa ne yéen ñëpp moom ngeen di roy moom ngeen di toppandoo ba ci sax yéen amoon na seen ay notu bopp ay notam moom ngeen di joué non waaw ndax tamit ni da koy nangu lu mu mën Serigne Ndiaye day def lu nice mais man topp ma ko Mm, royuma ko man sama bopp laay roy mais nag nit lu mu mun da nga koy nangul moo ngi def lu nice Serigne Ndiaye mu baax nag. fu muy fu muy géeyee barke Seydina ma xam ne fekk ko danaa ma seex am kaay géey ba pare nag teg si nag saa mu yor xaalisam ma ñëw géey mu boof bu ma boofee mënuma am li maa la ko tëralee. ndax mm. tamit wax sa mbaax waaye wàññiwul sa mbaax dara soxor baaxul. nit lu mun da nga kay nangul dafa mun moo ngi géey lu nice barke Seydina Mohamed. ndeysaan waaw a ah, Serigne Ndiaye loolu loolu loolu sedd na xool te dal na xel waaye nag sam-sam gi nga nekk dafa bëri ay artiste ah. ma dégg ne sam-sam dafa bëri ay clan dafa bëri ay kii day wax lii kii day wax lii kii day wax lii artistes yu booloowu ñu nekk ñu benn loolu dëgg la sam-sam booloowuñu sam-sam ñu si bari dañoo foo hmm. waaw maa wax loolu ñu si bari insister dañoo foo te tamit yàgg naa si dimbali ay nit après ñooy dimbali ñoom ñoo lay def noonu te am na ñoo xam ne sax laa la wax yàlla xam ne ni laa la wax dañ ma doon wax programme man Cheikh barke Seydina Muhammad maa nekk ni koo xam ne man nit du ma yab te tamit damaa fonk heure jàmbur man tey jii may njaay ba mu joxee sa kase na ma Cheikh huit heures boo xafee neuf heures lay yeesi te am na genre nit ñoo xam ne barke alxuraan dañ ma doon wax programme du ma waxaale ñoom sam-sam moo nekk nit ñoo xam ne mun na laa diw bër bi ba nga yaakaar ne yow la après ñu fool la gëmuñu kenn te dañuy wax fii di wax fii nii man moo tax nag boo gisee nag Sénégal nag boo amee fulla téye sa bopp dañ naa la da ngaa réew man noo ma gisee du ma fere kenn heure bu ma yeewoo maa ngi suñu kër gi toog jàmbur yi lu ñu la mën a yéene jàmbur yi lu ñu mën si yow ñoo dëkkal duñ ko mun si yow. Mm-hmm. barki Seydina Mohamed jàmbur yi ngay dem laa la wax g programme ba pare ñu yëkkati fay la nangam mais ñoo dëkkal du xam sa talent. yow boo demee yow ba xaadim temps ak et cetera et yow nga leen di géel yow say doomu koñ te sam moo nekk genre nit ñoo xam ne tey ma wax la ko fii de doomu dëkk respecté wuñu seen doomu dëkk ñoo ngi dem xool jàmbur yi di tagg jàmbur yi moo gën ñi ñiy tagg seen doomu dëkk te sam-sam am na lépp mhm. loo gis am na fi mhm. sam-sam yaa tout mhm. buñ booloo woon kenn du leen dàq dara dëgg la buñ booloo woon yor xor rafet kenn du leen dàq dara sam-sam yaa tout am nañ ko mais tamit lu mu métti métti fii lañ fii lañ juddoo fu ma mënta dem bu ma jëlee taxi fu ma koy wax caaroy mënu ma am lu gën caaroy mais lenn mooy seen problème dañoo soxor buñ boole woon léppay baax. aussi. si la ah gars yi booloo nag ndax mbooloo mooy doole te nag ki jéggaan ndax fekk sa dëkk daa tëggul te li ngay demee dàkkee kiwér bu jëm àll sa kër kii ndaw la nekk ci ci sam-sam gi di ndamoo sam-sam di ko tiitaroo ndax wax na ko sànq bu jëlee taxi caaroy lay wax kon yéen waa caaroy teg leen ko loxo ah, xam nga la moo ñaaw bàyyi ba jaan romb la nga topp ca wàcc way daw te xale bii bëri ko ci mbatara sa loxo mu dem ñàkk teg sa loxo mu dem jàppale leen xale yi lay demee damay jaay ah. man ku ma jàppalewul ma jàppale sama bopp ndax jàppale sama bopp wul lépp lu ma yor ci néeg bi bu ma la fa yóbbee yor naa fa quatre clavier hmm. quatre clavier ngi si biir lépp man sama gëm-gëm moo ma ko may am na ñoo xam ne ñoo ma jiitu si aari clavier laamu clavier sax mënuñu ko am lu waral lool noonu si mënuñu ko am dëgg neexul lépp lépp rek sama gëm-gëm moo ma ko may. ak sama am fula soxor baaxul soxor day xoos nit ba mu jeex. waaw kay soxor dalay xoos ngay toog di banque doo am nga defe ni nit ñi la ko def fekk na sa xol la ko def ngay wuti doo jot la ngay wuti nga defe ni doomu aadama yi la def fekk na yow la dañ la raxasal xol yi nekk benn ah noonu la demee de soxor ndax nit ki barke alxuraan boo ko yéenee jàmm da ngay am jàmm. mais chaque jour nga jël nit ki teg ko bët. naan di mais nag nit boo nekkee ndaw war a wutal sa bopp ay noon ndax boo wutalee sa bopp noonu dangay ngay sonn ndax fii nii noon fii lañ ko fekk te tamit fii lañ koy waaw fii lañ ko fekk te li wax <laughs> dëgg neexul ndax senegal moom ah, wax sa yesaay dañ lay waxal loo xam ne sax yow du nekk si yow. barke Seydina Muhammad maa si xam dara ah, mooy loolu mais sant yàlla bu baax ñu lay waxal loolu laa la wax boo leen boo demee seen biir néegi laala la wax doo fa fekk dara te tamit benn affaire dama koy wax dañoo jël artistes yi teg leen foo xam ne rafetul. Mhm. dañoo jël artistes yi yaakaar ne artistes yi ay baadoola lañ artistes yi duñu ay baadoola artistes yi boo te fekk si këram barke Seydina Muhammad bu la lëwalee deuxième nga daw. da ngay nekk ak nit sax ñu naan artistes yi waaw ay boo amee fari artistes yi nga dee. fata artiste barke Seydina Muhammad laax de am na ñoo xam ne laal artiste yi fi ñuy dem seen ndey yi duñ fa dem non si artiste yi fi ñuy dugg seen baay yi duñ fa dugg lu garaaw laa lay wax. dañoo ñàkkal fayda dañoo dañoo ñàkkal fayda. te xamuñu suñu métier bii nii ak a neex. ñu si am fulla ñoo ngi siy dem. Mhm. mais ñu si amul fulla ñoo ngi toog ba léegi. ndeysaan barki Seydina Mohamed. li muy wax xam naa ki dara ndax man ci doomu dëkk bi laa ci dëkk bi laa dëkk waaye nag man moom ba ñëpp mel man ah, focus rek liggéey def li nga war a def ah xam fi nga war a dem wax ak ñi nga war a waxal ñi nga war a waxal nga tegalante côté avancé dem sa yoon yàlla moomu àdduna kenn moom ko ah. waaw yàllaa ko moom yàllaa ko yow ak seen waa kër yow ak sa famille sa yaay ak say mbokk nga nekk di def aar naka ngay dundee ak ñoom. waaw métti woon na ci benn côté ndax commencement bi doon nañu wax waaw aar bi kon lu ma lay wax rek ndax boo nekkee fi aar si benn côté day métti ndax ya saa yi ni ñuy gis ci mbedd bi ñuy dund aar moo tax. ñu ne aar baaxul yesaay nga gis boo ah bu ñuy dem bu ñuy dem programme sol lu tilim yesaay léegi nag sa famille nag bu ñu gisee loolu dañ naan yii sama doom du dugg si loolu. mais ñoom bañ demee ba xam ne man si lu ma nekk nii dama kaa gëm ñoom dañ ma siy encouragé naa ma yàlla baax na jàppal dina baax te lépp luñ may conseillé maa ngi koy gis. sa yaay nag seedi naa ma xam ne sama yaay nag doon ko baax. ab sa kebe. doon ku baax ku sonn nag ku liggéey si kër gi fii nii. barke Seydina Muhammad ku sonn su ñun billaahi wala kooku mooy wax si moom sax amaane sax mun naa jooy. mënul ñàkk te mënul ñàkk ma wax si moom ku jàmbaare. barke Seydina Mohamed chaque jour day dëkk si na ma seex góor góorlul dina baax. jàppal dina baax. na ma nag bul déglu kenn yow gëmal loo gëm rek man bu ma lay ñaanal sa papa ji di la ñaanal yow bul tiit te man foofu laa ko teg moo tax tiituma dara. tiitoo dara barke Seydina Muhammad tiitoo dara xam nga dafa métti ndax man dama nekk ci milieu bi di dund aar di gis man ak sama yaay dañuy dund des fois nit ñi dañuy bàyyi ba ma génn ñu ñëw ci ginnaaw di wax ci moom di wax sol ci noppam yeneen di sol ci day dem ba day énervé ah nga ñëw mu lay mu lay jéppi sax yow mi nga xam ne moom moo la jur wala mu yan la ay wax yoo xam ne doo mu jugee ah waaw am na loolu am na yesaay fii nii da ngay dégg lu ne barke alxuraani karim yesaay nga ñëw ñu ne xool ko moom de man fii wax ju wax junne dégg naa ko mais sama yaay danaa ma gëmoon rek. jàppal. dina baax ma ne kon nag yaay chaque jour sa wax ji nga may wax moo tax du ma sonn barki Seydina Muhammad te si sama aar bi may dund mosuma seet dem fenn ba xalaat wala ma génnee ba xalaat ma heure bu ma yaakaaree ne day day metti foofu la yàlla di gën a bunt. barki Seydina Muhammad heure bu ma xalaatee ne day metti yàlla ci la may gën a tàccu. macha allah barki alxuraani kër macha allah moo tudd nan moom. bii Casio la. Casio waaw. ban mooy DXC. DXC mu ngi si biir. ok kon su ma déggee classe bi dafa am ay différence dafa am bii am bii am bii am bii ah. waaw mën ngañ ci limal ay quelque. waaw am na Yamaha bi Casio DXC7 ah yooyu noonu. ban moo ci gën a fort ban moo ci gën a nekk nekk boo xam ne boo ko tegee ci géew ñëpp dañuy kontaan. DXC7. DXC7 boobu waaw DXC7. Mhm. boobu moom foo ko teg macha allah. Mhm. boo xam ne ay Benjamin si la ñuy géej. ah Ibu si la ñuy géej. ak waaw artistes yu mag yëpp ñooy gis DX. moom la yooyu moom foo ko branché moom te son dafa gën a naay si nii. ok waaw yii pour ambiance kese la. ambiance waaw. waaw dañuy duggaat kon ci ambiance bi rek ah du dëgg waxtaan bi neex na waaye ambiance mënul ñàkk. loolu mënul ñàkk waaye nag seex am na ah, am na problème la fu sensible ndax nag comme xale ay xale ngeen tax da ngeen a jantal mën a solo ah. bëgg seen bopp di xeeñ parfum bu neex di di sol ci yére marque yi du ñàkk soo yi xale yi jigéen yi seex du ñàkk des fois nga dem programme déglu rek nga dem programme ah wàcc ci taxi fii am koo xëcc dugalaale ci néeg bi <laughs> yoot sa yaay du yëg ah des fois nga ñu ñu suur la ci mbedd bi seex seex seex seex nga xool ko ci gën a rafet dugal ci néeg bi ah loolu moom mënul ñàkk yesaay nit ñi moom jigéen ñi dëgg neexul yenn saa yi ma génn indil si Cheikh jàppal Cheikh mais man yàlla damaa def nag man sama clavier bii laa nopp. am nga gan. ah non mënul ñàkk moom mais oh. mais mais dama lay wax sama clavier bii nii. waaw ah, ah. ginnaaw yàlla laa la wax. nu ma mel moom la barke Seydina Muhammad fu ma dem ñu naw ma moom la. ma ni waxuma la clavier bi ma clavier bi de dama tëbbal ci xale yu jigéen ñi kan ak kan ak kan ak kan ak kan ak kan ñooy nekk ci ñoo lay bëggal ginnaaw ko laa vie bi am naa seex. am na non non mënul am na ñu may bëggee ñoom jigéen ñi ñu ma siy bëggee. ñi ñi ma siy toog bari na waxuma ñi lay bëggee bëggee mooy fan si waxuma fan si. mais man yàlla xam ne ni clavier bi tamit dëgg na. yaa ngi dugg ci ruq waa. non du non non loolu moom du ma dugg ci ah! ruq. ñamoo soow. <laughs> nee naa voilà. <laughs> seex a ngi nëbbatu seex ba pare tamit damay wax tamit ci jëmm ji nii. bala ngaa wax ci jëmm ji tontu sama question. non non <laughs> non sérieux na daal xale jigéen dañuy xaar. ah xaar ba jamono neex. ah sama aar rek. yàlla baax ah mooy loolu noonu teg tamit boo gisee tamit la civilisation au de la valeur. Uh-huh. artistes yi. nit yaay nawloo sa bopp bala ñu laa bala bala ñu laa gëm yow yaay njëkk a gëm sa bopp. dëgg la set dafa baax. civilisé mhm. boo nee aar laay dund da ngaa war a civilisé bëgg sa bopp ñeme ñampeg saabu set <laughs> ah mais tamit dëgg neexul ni da ngay bëgg sa bopp bëgg sa bopp dafa neex. ah, ah waaw waaw loolu tamit am na ci solo ndax nag. ku ci nekk bu ñu la fayee bu ñu la joxee kese vingt mille wala quinze mille jëndee ko yére toog wala nga jënd wala nga jënd sa yére jox sa yaay. tamit boo bëggee ñu naw la yaay njëkk di respecté sa bopp. waaw. moom la nag damay wax si moom. mooy kan. mii Assane. Assane. waaw sama seex sama lépp. ndeysaan. barki naa ma xam ci aw ma fayam. li tax ci nii may njaay aw ma fayam ci dafa nangoo son samay mbir. dëgg la. jëmm ci ci moo ma gënal lu ne. barke alxuraani këram ci moom ma gëna lu ne sama àdduna. ndax lu waral lool noonu ci da fu ne lu ne lu ne dama see génne lu ne. yesaay damay ñëw ne ko nangam laa soxla mu ne ma am yesaay ma tooñ ko fekk mu toog ma def ko lu metti tooñ ko man ak moom xoola ma ñëwee ne ko Assane lii xoola day ree pare si barke hmm. Seydina ma xam ne ñu ànd di def lu ne man ak moom mbedd sax fanaan nañ ci man ak moom. barke Seydina Muhammad mu nekk ku gore. ginnaaw yàlla lu muy def nii du ma tëgg kat de mais bu tëggee man la. barke alxuraani karim mu bëgg ma nag ci man ma ko lu may wax rek man ci man may wax si moom ak sama yaay mën naa jooy te garaaw <laughs> macha allah gën a dëgëral ànd bi yàlla gën a saxal ànd bi defe naa ne ànd bu ci nekk noonu noonu la war a demee mooy bu ñu dañoo war di di jiwante loo xam ne ëllëg ñu toogee dañ koy mën di waxante mu nekk ay kàddu yu rafet kon Assane jàppatoo bàyyi ndax nag ànd métti na méttiwul ci boo xamee ni nga ànd ak nit ki boo du métti mais bu fekkee moom mën na métti ci yow waaye nag Cheikh bala ñoo tàggatoo du ñàkk ñu bàyyi la nga daal di remercier ñi nga xamante ne si ñoom ñoo la jàppale ñoom ñoo la jàppale ñoom ñoo la dooleel waaw di sant nag fii ma dëkk aw ma seen fay liyow ma defuma dara barki Seydina am xam ne nekk sama kër papa loolu rek sant yàlla la mhm, mhm. suñ papa nag defaral ñu lu ne lu ne defaral nañu ko ñu namuñu dara barki Seydina am xamet te mënoon nañoo nekk fii di xëy di taxawaalu wala ñuy dem ah na aar dañuy dund def lu ñu saf mais yàlla dimbali nañu ah mais sant yàlla bu baax cee tamit muy Ibrahima Ndaw kan la moo ngi nee toog. ñu naan ko waaw borom année fi ñu naan ko caada faama man tamit mu sonal ko nag yesaay damay ñëw mu ne ma nii waa baax na boo bàyyiwul jigéen ñi xoola kon nii rek yooyu yëpp rek pour bëgg man ma ma gën a régler fukki sama liggéey mm-hmm. yesaay sax dama naan damay jékki-jékki na ko waa Ibo tey baa dama wut gan genre yooyu tonk mu ne ma xoola fii jigéen du fi dugg barki Alxuraan Karim man aw ma yaayam tamit nekk ku baax amul lu ma defarul. mi faama saw yow Ibrahima Ndaw yàlla na si jàmm yàgg. macha allah defe naa ne waxtaan bi leer na ah te li ñu bëggoon génne ci seef yëpp macha allah génne na ko te lii rek la ñuy wax mooy nit boo nekkee ci métier da ngay jàng ngir ëllëg bu la dara bettee nga mën a wane sa bopp kii lii lañ ko bëggee nii lañ koy defee ka wane sa talent ci nii lay dox ci lii lay dox pour ñëpp la nag waruma ko am succès waruma ko am alal waruma ko am daraja ñi may wër mooy xale yi nga xam ñi ngi ci banlieue bi ak feneen ak feneen ak feneen am ko génne ñu ñu waxtaan ak ñoom dégg leen suñu ay caméra ko àdduna yëpp jot ci may wax gars yi ni ah tous les vendredis ak

merci Cheikh. mais kontaan naa kontaan naa baak Serigne Touba suma ji suma xarit bi yàlla na yàlla gën a dëgëral yàlla gën a kattanal ba nga a ak sa sago ah ku la xaar yàlla na xaat di seex loo dëkk yàlla na ko daan da ngay nekk l'international da ngay dem ba xat insha allah rabbi ma soxla émission naa la seex nga naa am mbay sikka xam nga c'est-à-dire loolu bëgg te day am insha allah rabbi bëggee Palier production ñëw na ànd ak danse bu bees a bees xolal kay wone sa talent. bu len ngeen abonné ci chaîne YouTube bi bu ko défé ngeen bës cloche bi di am suñu ay vidéo en exclusivité mbokk yi cinéma bàyyi wu dara lépp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak banlieue production publicité pour am visibilité banlieue production moma ci doy jokkool ak service commercial 77 533 17 31 wala nga woté 78 211 08 94 ak banlieue production seen ko li témoin si ñu mbég